ñetteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi jamono jooju erod buur ba tàmbali woon na fitnaal taalibe yeesu yi mu rey kenn ci ndaw yi saak rakku yowaana gannaaw gi mu jàpp piyeer ci màggalu bésu jéggi bi mu tëj ko kaso teg fa fukki wattukat ak juróom benn buur erod dafa bëggoon attelu piyeer ba rey ko gannaaw bu màggalu bésu jéggi bi weesoo taalibe yi ñaan yàlla ngir Pierre mucc ci Hérode bi ñu waree àtte Pierre ci guddi ga Pierre ngi doon nelaw ñu yeew ko ak ñaari watukat miir kaso bi ay xeer yu rëy lañu leen tabaxe woon jékki ak leer fees kaso bi am malaaka borom bi feeñ ci kaso bi malaaka mi tàpp Pierre yee ko noonu jéng Hérode malaaka mi wax Pierre mu jóg solu te topp ko Pierre topp malaaka mi romb wattukat yépp mu yaakaar ne dafay gént wala dafay janeer bi ñu àggee ci bunt bi mu ubbikul boppam bi ñu génnee ba ci mbedd mi nees tuuti malaaka mi ne fes réer Pierre foofu la Pierre doog a xam ne nekkatul ci kaso bi Pierre dem kër Mariama fekk taalibe yu bare nga fa daje woon di ñaan mu fëgg bunt bi bi mbindaan bi déggee baatu Pierre mu daal di bég waaye ubbiwul bunt bi mu daw wax ko ñeneen ñi ñooñu ne xanaa malaakaam la ñu mujj ubbi bunt bi gis ne Pierre la Pierre wax leen naka la ko borom bi génne kasa ba Pierre wax na ñi gëm ñu wax saak ak ñeneen ñi ni ko yàlla wooloo noonu mu jóge fa dem beneen bërëb ci ëllëg sa wattukat ya gisuñu Pierre buur Hérode reylu wattukat ya gannaaw loolu buur erod sol ay mbubbi buuram ngir wax ak waa réew ma mbooloo ma yuuxu naan lii baatu yàlla la du baatu nit jëf ya saar fukk ñaar ay ñaar fukk ak ñaar buur erod weddiwul wax ja noonu am malaaka borom bi fàdd ko ay sax dugg ko lekk ko ba mu dee léegi malaaj laaj leen ci seen xalaat lu tax yàlla bàyyiwul ñu te mu bàyyi ñu rey Saak xamuñu lu tax waaye xam nañu ne yàlla boroom cafeel la te lu jub te gën rek lay def